doon jéego mu baax mi ñu ngi lay siyaar bu baax a baax te mu nekkoon 2STV yi yow moom wax dëgg yàlla li may seede ci yow nit ku baax nga nit ku sell nga nit ku yiw la xañ na dangaa juum rek ndeysaan yow yaag Elas njaay bu ngeen waxtaanee rek juboo yaag 2STV bu ngeen waxtaanee juboo waaye fi may ñëwee sa diggante ak Wally Seck Wally sekk mësuma koo teg bët mosuma may ñàddaram waaye Wally nit ku baax la barke yombal lakk lakkabar lu toll nu mu jub si mu génne sept millions di ko maye di ko maye di ko maye di ko maye ba mu jeex tàkk di ko jëndal ay nit ay xar ca yàlla tax loolu tele wunu ko kenn waniwu ko da koo def te yàlla tax yaayam gërëm na ko baayam gërëm na ko don àdduna amul solo na ñuy suturaalante na ñuy waxtaanante lu baax àdduna amul solo loo gis ci àdduna rek day jeex xañ na fële nga nekkoon ca 2STV yàlla daa dogal sa wërsëg jeex bientôt di nga am wërsëg bu gën a dàq lii. maa ngi lay ñaanal yàlla yàlla jox la lu ko gën yàlla jox la loo xam si ndax doomu aadama saa soo nekkee ci leneen ba jóge fa rek sun borom dencal la la lu gën a wóom li olof Njaay di wax naan yàlla denc na. yàpp bu gën a duuf keccax wax na dëgg barki bi mal xaama lakk bar kenn du gis gis yàpp di dem ci keccax doon àdduna mu solo on est ensemble ñun Sénégal ñoo ko moom bu nu waxtaanee rek juboo doon te des fois ñu xaqoo xuloo ŋaayoo mais Sénégal benn bopp la barki bi mal xaama ba bar buñ ko xoolee ba ca biir ñun ñëpp ay ay mbokk lañ on est ensemble yal na yàlla def ci réew mi jàmm waa bay nukkum ci yéen nu xuru jukkum guppoo gupp gupp faadaa gupp laamit gupp yi abonné leen j'aime leen commentaire leen wasalaam